ausubillahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim aw nu ko yaa muhiinu wa bika nastahiinu yaa man min annaasi ma asamta xayril wara wa sanno azamta wa habloo jumlatal ma taxtaaru la wala dayka innakal maxtaaru asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di siyaara bu baax te di leen balwaaq di leen ndekkal ci bis yu mag yi nu weesu di koor gi tey di fukki fan ñaar ñu toog fii ci péncum Touba buntu ko sëriñ Bassirou Bara te doom ju tedd ji wutu ko muy sëñ Abdou Aziz ñu farataaloon doon toog fii ci bunt buntu barabu Cheikh Sa Diène maase yi du xasida yi ak li murit baaxoo def muy naan kafe tey nag noo ngi fii ci pénc mi mbooloo mi fi toogal ñëpp ñu ngi nii mu ne suleena leen a lim di waxtaane koo xam ne muy sarafaal ak weeru koor waxtaane borom Tuuba ak weeru koor jàpp gaag fonk gaag yërmande ja ak ndimbal la ak njëggal maa ngërëm ga yooyu yëpp ci weeru koor ni ko mag ñi farataal di ko waxe ci fukki fan yu jëkk yi ak fukki fan yi ci digg bi ak fukki fan yu mujj yi njëggalum bàkkaar ak yërmande yàlla ak texeel ak bor ab jaam waaye Cheikh sunu waa ji def ci jaloore ju réy ju màgg ndax ci weer wi ci la yoonu murit sosu fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor ci la badar jeex ci la yoonu murit sosu yonent bi sallallahu alayhi wa ci la gën a àddina ci guddi altine muy weer wu màgg gën ci weer yi guddi ci gën te ñu tànn ko sëñ Tuubaa nit ñi umpale ko mu xam ko muy leeltu xadri te ñu jagleel ko soxna May di waajuru sëñ Mourou Mahfous moom Cheikh Awa Balla waaye fukki fan yeeg juróom-ñaar ci la Cheikh Rafaal gisee ak sëñ Tuubaa ginnaaw bu mu jaaree kër sëñ Maxtaar Sill Tayba sëñ Adama Gueye jëlee ko fa ak sëñ Makhtar Touré ba sëñ Adama Gueye moomee nga xay moo jëlee woon foofa ak sëñ Makhtar Touré indi ko Mbacke Kajoor moom Cheikh Ibra Fall wane la koog sëriñ bi ci saayir ak batin sëñ Adama Gueye moomee Cheikh Ibra yebal na fa nijaayam muy sëñ Ibra Ngoone Njaay mu jur sëñ Baara Njaay mu jur sëñ Cheikh Njaay ak sëñ Amdi Njaay ak Njaay ak sëñ Maam Njaay mee ci alom nga mu waat ko ñetti at ngir ni da koy neexale ngir lim ko wanal sëñ Tuubaa ndax ku la woon sëñ amatoo payam ba may ñetti yi matee Serafal ñëw fa ni ko nan dem kër ga ba njëg see sëñ Adama Guèye ni ko ki fi yabalan mu doon mu muritu ngir léegi ma la woon sëñ ma defal bu ma doon dem ci sëñ bi du ma def lu ni toll kon yàlla na ko barke topp moom sëñ Baara Ndiaye sëñ sëñ Ibra Ngoone Ndiaye barke topp na ko ca te sëñ Baara Ndiaye waajuram mu jigéen ak waajuru sëñ Mortala ak sëñ Alifal Mbawar ñoo bokk lépp ba tey njabootam ñu ngi fii ci Palil waaye di nuyu Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Sidi Mountakha mi xalifa général di murit taalibeem bu mag bii di sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaar tey wax ni ndogu yi mu jiite di ko togg ak mboolem ku yaakaar Cheikh Ibra ak mboolem kuy taalibeem Cheikh Ibra ak mboolem kuy sëtu Cheikh Ibra Fall yàlla yàgg te lañ ca fas lañ ca bëgg lañ ca nambal ci julli yeeg taalibe yeeg réew mi yàlla nangu ko te boole ko te nu ñaan sëñ Tuubaa yàgg fi muy sëñ Muntaxa yàgg sëñ Cheikh Jëmb yàgg fi mboolem rakkam yi ak sët yi eh, di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a jël si kàddu yi di sëñ Sané soxna maam jaara sekk kon noo leen di gërëmt te di leen sant di sant borom kër gi nga xaye fi moom la ni toog mu sëñ Abdou Aziz moom sëñ Bachirou moom sëñ Baara waaye njëbbal ma fukki fan ak juróom-ñaar ci koor ci la Cheikh Rafal gisee ak sëñ Touba damay jébbaloog nu ñuy jébbaloog na koy waajee ak nu ñu koy defee ndax mbooloo mi teew ko looloo ku ba wax ba ca ñaar fukki fan ya ba ca ñaar fukki fan ya di bisub dimanche. bisub boobu ca mbake Kajoor di ñaar fukki fan ci weeru koor ca gi gis fekk na fa ñeen fukki mag yu manqué benn mu dikk ñeen fukki liin waaye la wax la kenn waxul foofe li ci ëpp xam-xama leen fi li ci am ëpp doon kaang mbaa fóore mbaa lu waay laaj ci masala nga wax ko looloo leen yóbbu sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye te sëñ Tuubaa yónni ko boobu siiw te muy gàgganti ko ci lawal ma foos te mag ña gànt woon ci yónneen ba lañ noon buñ demee dañ jël bind moom mi nangu far mu jële gu bën bind mi dem ca lawal mahfuus di fa gàgganti ko kon yónnee nu suñ taa bukk te keneen yónnee nu keneen sëñ Adama Gueye daa dugg xalwa ci mbaabu mook rakkam wala magam sëñ ma baabu sunu borom feeñu ko ni ko wàcc naa àddina mu ne kon bu xëyee seeti sunu borom fu mu ko mën a gisee dina ko waaye adduna jëralatu ko muy garde lenn wala mu soxna wala doom wala alal te sunu borom mi nga xëy moom la doon teg laaj. doon ku maandu moom sëñ Adama Gueye doon ku yegg ci yàlla doon waliyu kaamil doon borom basira doon borom wilaaya su sunu borom daan wax ni Moussa tolloon ci bu yàlla wax mu di ko dégg. sëñ ma Gueye dégg toll woon na foofu bu yàlla daan wax da koy dégg bu sëñ Tuubaa dee diyaale ak yàlla da koy dégg malayka yi bu ñuy waxtaan wala jibril di waxtaan suñu borom mu di ko yebal ci maison sëñ ma Gueye da koy dégg bi ko loolu jaaxalee walla boog mu def li nit ñuy def lakk ci kanam bindee fi ni daa wopp wala naar damaa jot kilifa ga mu ko doon waxtaan la muy sëñ Modou Maram Kan mi jëkk a jébbalu ci Cheikh dëkk siin laykan siin siin moo ca mooy siin laykan rek ci kajoor ni ko waxal ma ci yow mi nga xam ne dañ nga riir mu seet ko ni ko fii nu toog ci siin ak mbaabu sorewut waaye sunu borom xamal ni ma ne sa nopp yi daa tolloog waxu kaayam yi buy wax ak lu muy nal ak lu muy naal di nga ko dégg te yi yàlla ku du Moussa mi ko jagleel attanoo ko am mag mu ci toll ni ko lii tax dégg gee wàññi ko mooy da ngay dem tux póon mag mooma xam naa ko ne waaye daa ko tudd mag moomu ne ko mu maram mu ne ko kan mu ne ko da koy wax mu tux póon ndax dégg gi wàññi ku biñ ko waxee sa ñaari ma gi joxal leen ni kooku lu mu wax ñu ne ah moom ne dañ da nga war a tux póon ndax sa wàññi sa nopp yi dégg gi wàññiku mu ne ko nag àdduna moom lu ma jaral lu ma jaral def bàkkaar ngir bañ a dégg wax yàlla bëgg a gudd fan jaralu ma ko bu dee day reyee dina ma rey waaye def bàkkaar bu ma yàlla seet ngir bu la jotee ma ragal dee addina jaralu ma ko àllaaxira jaralu ma ko kon naa dee moo tax ñun fukki at ak benn la dundu sëñ Ibrahima Sall Njaañ dugg xalwatu sunu borom ni ko sama leer wàcc na àddina sëñ Maxtaar Touré dugg xalwatu sunu borom ni ko saab takk ndeer ñëw na àddina muy nan seeti jëmm ji jëmm du tàggoog takk ndeer jëmm du ku leeram ku leen gis gis leen ñoom ñett ñu daal di ànd daal di fekk sëriñ bi deqale fi sëñ Mor Sali ci Kajoor la ba tey ba ñëwee ñu fekk sëñ taa ngàbb ab gopp képp kurus gi ci baaraam yi benn loxo mu ngàbb ci jukki di bay mag ñëw yéew ko ni ko yow de lan doon seet mu ni ci nan toog jublu penku kenn ku ne wax la nga xibaar ba nga gis mu ne lu seen pexe nu dama bëggoon nga bàyyi sa nu bay ko yow te yow nga toog sëñ bi ni leen déedéet sama ndigalu kilifa la te loolay xañab xarit na la matab xarit te baay bu diglee kenn mënu ko caa wóotu ndax baay ku du yàlla doyantu mënoo ko wóotu ci doom ndawee bu dégg ndigalul baayam te saa baayam a ko digal waaye dem leen tàggu ko bu leen waaw ngeen ñëw bañ dee suñ moon sëliñ leen déedéet dama koo sas daal di sas su ngeen jëlee seeni sas bay aw sasam lu leen fu leen leen ak jeeg moom lu lu mu leen defal yéen a xam ñu dem wax ko loolu ñu daal tobbi ñetti ñeenti sas yi sëñ Matar Touré sëñ Yaarama Guèye sëñ Ibrahima Sarr Njaañ Ahmadou Khadim ñu bay sas yi bayaale ko sëñ bi toog loolu la sëñ Mourou Moussa seqoon ak sëñ Fallou ba sëñ Fallou bay aw sasam bay sasu sëñ Mourou Moussa moo tax waañu walafal kat ba fallu doo xawaare def sa mag ji seex bay sa sami ba mu jeex bay sa sax ba mu jeex fallu doo xawaare am ci mag ñi ñu sant Mbàkke ni ko gone sax di def lépp man yorab gopp yor jukki yor kurus loolu jëfi gone gone mënu ko mënu ko man duma gone ku ma mag amul ci ndax ajabari rahmaanu xablal xalqi sab ena alfan sant bil ak juróom-ñaar fukki junni at yàlla mbaru asmaan lal taay ñu su bindu ñu aadama ak awa ma jaamu yàlla ba yàlla man may moom soow ak suukar ndox bokk naan boo bokk tuur man du ma gune damaa fekk kër sëñ Moodu Sëli sell di géej kër maam jaara sell di géej muy géej gu saf sàpp bari ndox lool te ku ci naan dootoo mar dootoo faatu mu mel ni maawul ayaati ma wàcc ci yéen waaye maa mag mag ñi sëñ Tuubaa wax loolu ndax àll ma ni maa kaana xablal xalqi man kaana li bi karima telxi waaw du aadama basar ba ko yàlla itan fekke naa lool waaw inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bi yàlla bindee jaam ñëpp jóor leen ci benn barab di leen laaj lu leen gën a xam ne alastu rabbukum ndax du ma seen boroom ñi tax yonent bi ne bokk fekke naa loola waaye ba mu bay ma koy laata wax wuute naa ko ndax néew ma ko woon ñu ne ko foo neen mu ne yéen ci yàlla laa doon wattu ñu ko ci nan la mu ne salli wa sallim man ala man xat ajaa baabil balaa yow ma alastu awala xam la sawee takkalu mi fekkuma fa moo tax bayit woowu moo wecc ñeen fukki salaatu fatiha ak benn bayit woowu moo wecc ñeen fukki ina laa woon waaye ki salaatu ala nabi euh, illallah wal malaikatu salawna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu wa taslima bayit woowu moom ak ñooñu ñeen fukki yoon ak benn ngay wax ci ñoom ñaar door am benn bayit woowu ba mu ca génne la ni dañ maa wattuloo géej gi wax afaaliya silen musuuna laaw ubban wa laa ilaha illallah ak afaaliya silen musuuna laaw bi siri laa ilaha illallah lam yoon in maa baax saalika falulaay ni ma laaw rabbi wala ilaha illa rafaqani ilal jinaani laaw ca bis bi bikka wala ilaha illa laa hasbi allahu laa ilaha illa alim tawakkaltu wa rabbu arsi asimi daani laa ilaha illa seydina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ba mu ne allah ku bar daa jóg taxaw ni foofa laa neen ne yàlla ni ma wool gaa ñëpp mu ñëw mànd leen ci géeji leer yi yajjadu ni ina malikil muxtadir kullu waliyu lil jinaani yabtadir ba ñëwee ñëpp maa def réception ba maa doon séddale maa joxe kaasi yi moom sëñ Tuubaa Cheikh Fall daal di ñëw sukk ca Mbàkke Kajoor ci gis Bamba bisu dimanche ñaar fukki fan ci weeru koor wi ni ko dama laa bëgg a jébbal saa bopp adina ak alaxira bàyyi naa yàlla mi ma bind lu naqari dégg ci borom téere yi ahlu kitaab bàyyi naa yonent bi tax ñu bind ma lu naqari dégg ci ahlu kitaab bàyyi naa saa bopp bàyyi naa saay bokk bàyyi naa àddina li ci biir bëgguma bëgguma bëgguma àjjana ragaluma sawara da ngaa sap sàpp ci rasulaay ma bëgg saf sàpp ci yow te loolu yow yittiwoowuma ko ku yow bëgguma ko ku yow bëgguma koo gis ni nga jaxasoo ak yàlla ak rasulullaay ba soow ak suukar ak ndox bokk naan baa bokk tuur loolaa bëgg a jaxasoo yow noonu feeg may dund tey nooyi mbaama jógi adduna di wane ginnaaw sama ñaq yi yow laa koy liggéey la adduna ak alaxira jébbal naa la sama loolu lépp yett laa ci téye waaw yett laa ci téye sëñ bi ni ko yan yett mun ko fit wi ngor gi jom ji mun ko lu tax mun ko fit jom ji laa lay liggéeyale ngor gi laa koy yeggalee waaye fit bi laa koy sàmmee kenn du ko ruur moo waraloon ca njaarim moom Cheikh Fall mu génn aw yat mbaxana aw dal neefaree nag ñu ne ko loolu jublu mun ko nuyu sëñ taak mbaxana ma dóor ba nga néef ne nawi ku sol mbaxana ma dóor ku ñu ñëwaale ay dàll ci biiram ma dóor ku ko lox joxaloo ko sukkóor moo ma dóor daan ni sëñ Bàmba borom la du morom lu nekk ak alaaxir gën jëm sëñ yàlla mu bind jaam ñi ak yonent bi tax ñu bind jaam ñi amuñu ñaar sëñ Tuubaa amuñu ko ñaar maa ngoog sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko su ma loolu doo ma mun ko tànk bi yàlla laa topp ba mu suuf ci si jëm ma topp ci tànk bi ku yàlla amu yitte moom sëñ bi ne ko ba ma ñëwoon ci àdduna ñu ne ma armeel bee rasulaay ci tëdd wala fii la jaar gisuma armeel beeg tànk bi asamaan si ko daal tiim suuf si ci la daan jaar ni ma ko bëggee daa ko ni yegg ci yàlla mu ko kon jeex na su ma ñëwoon ñu ne sëñ Bamba jaar na ci mbedd mi jàll ma topp ca mbedd ma di jàllaka lay ni ma ko bëggee daa yegg ci yàlla wax ma fu may jaar rek mun ko yegg ci yàlla am ngërëmal yàlla ma mara laak sa borom jubale laak moom jubale laak say bokk jox la say morom jox la lu bokk amul amul mënuñu ko mara laak ku sa borom te loo yàlla def ko yettat laa la koy jaayee mun ko yan yettat mun ko at mu njëkk mi dooma laaj lekk dooma laaj naan dooma ne fu may tëdd dooma ne fu may tëdd fu may lekk amee lu ma lëm néeg luy toll ak njarweñ kawaruk fas amee lu ma la ko cedd waaw Cheikh Fall Cheikh Fall ne ko jaral la ma ko Cheikh Fall liggéey ko ci ñetti weer yu manqué juróom benn weer mbaa boog ñetti weer yu manqué ñeenti weer ñetti waat waaw ñetti at yu manqué ñeenti weer mu liggéey ko ci loolu borom woo borom Tuubaa waat ko ci biir Daaru Salaam fee borom gaaw a tëdd fekk takk nañ fa nii boo xam ne juróom benn koñ la kon morom ma 4 mètres ñu xadd ko juróom-ñaar fukki dënd ak juróom-ñaar dënd bu nekk 11 ñu wooyi Mbàkke booba mbaaxaan ma nga takk juróom-ñaari nii Mbàkke teen jaajug mbaaxaan gaa nga Mbàkke bu kenn dem ginnaaw dafa ko jarali bokkam mu Cheikh Rafal bu kenn dem Cheikh Rafal wooyu leen ñëw dikk ni ko sooy bokk dañoo jaawale tuñ mooy dañoo mer maam Thierno dem ñu ne ko dunu ñëw yow dañ laa rus ngay mbokk réew mi di aada waaye ñëwunu ñu ñëw borom taani bërit julli ñaar ak sëlmal maam Thierno jàpp ca beekoñ sëñ saa jen sëñ Daaru Asan mag ñi sëñ bi ne illay yesudu kalimu tayibu wala amal saali yë saali na yër foo néeg bi naa falaan ak ñoom tege ci kaw jën yi sëñ bi ne saa baara maam Cerno yéen a teg néeg bi wala maako ko teg maam Cerno ko yaanu booleeg néeg bi yóbbu ca kaw mu ne leen suuf dootu leen laal suuf moo tax ñëpp a bëgg a mel ni Cerno te kenn bu te bëggut a mel ni kenn ña ko fekke woon ñëpp a bëgg a mel ni ñoom te bëgg ñoo mel ni kenn Cheikh Fall dem réew tu ñaar fukki reeni jële mbaan ak juróom-ñett takk cam ñax ca bopp ba sëñ Tuubaa di bind di jàng mu toog ca kippaar ga di niit waa Mbàkke génn di ko séentu naa xoolal dafa muudu Mbàkke bi di lamp lamp lu mooy lamp bi sëñ Fallu tudd muy soror bi borom gaawaan ŋàbb guttum ndox ak tëkk tëkkal bu cere yët ko ko ñu toog Cheikh Fall na ci gajj bi borom gaawaan toog ci akku yiir gi ñu mujj na gi Cheikh Fall mujj gor ci Daaru Salaam yàgguñu ko dijji sëñ gaawaan toog gaynde gi ñëw boof ci wetam di ko mar Cheikh Fall di bërit suufu si yàlla si su fepp suufu ne mu def ko kër tus bëgg fàdd gaynde gi addu bàyyi ko ca kaw ni ko tàmbali wut yàlla tàmbali loral yàlla mu tëne ñoo ñaari jaam lañu maa leen boole ci kër gi ku lor morom mi maa ko far serafal yebbi suuf si ñu defar néeg bi borom tuwaa nekk ci biir bayti bi ba yàgg mu génn du gàtt ci biir mag ñi wër ko mu ni Ibra Fall mu ni Mbacke mu ni bisimilah Cheikh Fall dugg waaye du raam sunu bëti woom yii daa defee du doxe ni mbëtt di doxe mbaa jaan ñëw ba ni sa mucc sëñ Tuubaa mu ko jugal toog ci lal bi mu ne ko ñemewuma ko mu ne ko xanaa woyoo ndigal mosuma dégg sa déet te yaa ngi koy bëgg def Cheikh Fall Follankaat da taxaw ci digg lal bi toog ci digg lal bi mag ñi yéew mu ne cey man ak Ibra mii yaa tax may asamaan ñëpp di suuf yaa tax may gaynde ñëpp di mbotee xar yaay tax may njamalaak gëléem gaay di ay bëy sa kawal gu ñuul ba fii nga toll musuma dégg sa déedéet musuma dégg loo tële yàlla gërëm na la rasulaay gërëm na teg nañ ko sa loxo teg naa ko teg nañ ko teg naa ko sa loxo moo tax mu ne bi jaay jibril la sijib siwaal yi wa balaxali mablaxi rijaal yi rijaal ja mooy Cheikh Rafaal ku gëm xayrun ku gëmut saran daal ko may naa la yoon wi lu waaye mën a doxe te loolu ci li ngay doxee dara ak yegg ci yàlla am ak taalibe gu ñu nangu dana des moo tax sëñ Abdou Karim Mbàkke moom sëñ Fallu yàlla fi yàgg ak i magam ak i rakkam ak i bokkam ku ñu jiñ baatin mbaa wilaaya mbaa ab taalibe nga dem fekk ko fa moom fekk mu mel melokaanu Cheikh Rafal wala muy joxe ni Cheikh di joxe wala mu jëf-jëfi Cheikh Rafal dañ koy jey waaye mu amu ca dara yoon ku ci bëgg a yegg ci yàlla am la bëgg sa sëriñ am li mu bëgg ci yow da ngay mel ni Cheikh doo linkaar dara doo waaj dara gëm ak gëm ak wóoloo ak yaakaar ak doyloo ak wóokilu ak fàggu ak fàggu waaye sëñ bi laaj junni nga joxe ñaar téeméer li may wax daal làqar ci wut royo Cheikh Rafal Cheikh Rafal yi daay fàggu fàggu te it mos jox suñ tuwaa ab yelwaan lu mu jël luñ ko jox suñ tuwa moo ko ñàkk wala taalibeem ñàkk ko mu jox ko xool nga ko bàyyi gi koor gi bi mu teroo fen fenn fu ne la booli nawar yi dugg boo beree sas togg ba ne du ma ci lekkit la nga togg li Baay Faal togg ko gën a dagan ndax ñoom seen xol da cee sedd guy te kenn du ko ñam xorom ndax dañ ñu Sëñ Tuubaa kenn du joxu des kenn du jox sa kilifa aw des ba duñ ko ñam xorom du duñ ko mus togg ba noppi aw ñam gëlëm yu toll yu sëñ am di faal yi nag yeeg xar yi kenn xamul ñaata la sëñ kër sëñ Cheikh Jëmb kër Cheikh sëñ Ali Fall Mbawar sëñ atti sëñ Tuubaa yi atti Cheikh Rafaal yi bokk lenn du la defa ñor te kenn du ko ñam toggul lu toll ni ay gëléem ak xar ak ganaar te fa te dañee loolu xol bu tàlli ak yéen ak mokk moo ko waral ku fay ku fay ñiy woor di nga fay ñi añal ñi woor soo bañee ñu fay leen ba tànga togg sa ceeb wala sa sa yaari ginaar ba lekk ko ñu fab ci li nga yor jox leen ba noppi te doo ñam te lañ doon saaf ndax iñaana la cay tànga lekk nga bañ caa lekk te ku ca lekk nag sag ràgg deñ lii baa Faal yi togg di yóbbu ku ci lekk doo jaaxle àddina doo jaaxle alaxira ndax togguñu ko ci neen pas-pas lañ ko toggee ak yéen ak bëgg ak wóolu ak yaakaar ak doyloo ku ci lekk mucc ku genn ba doo ci lekk foo jaar tubaab bi digal la looy def mooy da tas tension mbaa estomac mbaa nga jabet mbaa lu ne dal lan nag te disu la faj yàlla nañ fi yàgg nu yàgg fi waaw Cheikh Fall noonu la jébuloo ak yéen ci biir yées mënut a wax ci télé waaw ndax ne bi muy julli moo dàq julli julli kat yi waaw kaamil ñaari rakka moom Cheikh Rafal dina ko daan def alxuraan ni mu ko jàng kenn jàngewu ko ni waaw Baye Mor Ndiaye tomb del ne ne Cheikh Rafal mooy kafatama keef gi kaang la faa gi fóore la taa tomb gi tëf sir na alxuraan musta mooy yàlla daal ni looloo jafe musuma moo yàlla te muy dëgg looloo jafe Baay Faal yaa ngi nii ku fi bàyyi yàlla bala fi Sëñ bala fi Rasulaay bala fi ku leen jàpp ak noo mën a mel ak foo ko noo mën a mel ñu bàyyi la mbaa la ngir Baay Faal salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf